mais sama gars yi bu ci loola nekk yéen a ngi ci jàmm waaye si wàllu bienvenue yegg si ngeen bergerie mystique du Sénégal fii mooy bergerie mystique du Sénégal bergerie boo xam ne adduna yëpp découvrir nañ xam nañ li fi nekk base bi nga xamante ni fii la lépp nekk fii la lépp wóoree muy waa kër famille Saloum saalum loolu nag bu ngeen bëggee xam yi fi nekk ak lépp da ngeen di may topp incha allah rabi ñu dugg ci bos bi ma leen champion yi nga xam ne ñoo nekk ci kër gi incha allah aja L voilà kii kii mooy Île du Saloum kii doomu Saloum Saloum la ak Calvin Cap kii wax dëgg yàlla xar la boo xamante ni àdduna yëpp am ci moom yaakaar parce que li mu defagum ci caamu senegal euh, kenn mën la wax ne mu day kii boo ne doomu Pika boo ne doomu Saloum la rek dañ la laaj kañ mooy Saloum Saloum. Saalum Saalum mooy ki nga xam ne moo jur Picasso jur Mourid Sadikh euh, jur jur Samsam jur ko moom mi di Idi Saalum kii nag seexandoom ñu ngi koy wax Firdawsi nekkoon euh, Dakar muy xar boo xamante ni àdduna yëpp am ci moom yaakaar kii wax dëgg yàlla tey lu ne dégg na ko ci àdduna moom xar bi pire boo xalaat ci àdduna rek dégg na mais kii kii trente million dégg nañ ko ci mais jaayuñu ko ba waa ji mujj na fay trente cinq million mais kii moo ñu gënal trente cinq millions parce que xam lu tax parce que bu ñu la xar trente cinq millions dina la jaaxal moo waral xar trente cinq millions te di yàpp ak der ak loolu kii tey nga def ak moom benn deux cent cent doom yi mu lay jural loolu tax nit ñi di càmm parce que doom yoo xam ne nii a wàcc tey nga am ci benn cinq millions dix millions quinze millions loolu boo ci amee benn série boo xam ne ni dafal ne la quinze doom kooku du moromu trente millions loolu tax nit ñi di càmm mais nag booy taxawee ne xar mi 30 millions nit ñi ñi xamul du ñu mën a comprendre lan moo xew mais daal ñu présente leen champion bi ndaanaan bi di Ili Saloum muy koo xam ne ni doomu Calvin Kabla ak Saloum Saloum muy xar moo xam ne àdduna yëpp am ci moom yaakaar kii moom jàppal ne moom c'est la champion moo ngi noonu doomu Saloum ak Calvin bi eh! kii itam doomu Saalum Saalum doomam la waaw mais fii dañ fay def benn saaru mixation ba nga xamante ne nii parce que loolu moo tax ñu la raal am am améliorée parce que en plus en égale deux tey bi ñuy jëlee li nga xam ne mooy Saalum Saalum day def hauteur di def beauté di def lépp mais boo jëlee si waa kër magistrat yooyu yooyu dañoo déggoo moo tax tey ñun li ñuy liggéey dañu xam li ñuy liggéey base bi lan la mais Saalum gi moom dafa doon koo xamante ni moom Sénégal gépp bépp bépp éleveur ba fëgg bëgg na ci famille Saalum Saalum loolu yàlla dogal kooku mooy toog muy dox xar la boo xamante ni toog noo toog muy dox am na ci am na ci élevage <laughs> waaw waa kër famille Saalum Saalum non ñoom toog muy dox lañ wax dëgg yàlla loolu moom la yàlla dogal ci ñoom kii doomu alhamdulilah alhamdulilah tam wax dëgg yàlla nekkoon champion boo xam ne dina kenn doomu gaynde wax dëgg xar bu gàtt carrière sax mais nag def lu mucc ayib parce que gaynde moom lañ jaayoon cinquante millions yi ñu jël waaw ñu jël gaynde teg ko ci benn doomu docteur Fall alhamdu juddu léegi nag alhamdu moo jur kii kii doom alhamdu la alhamdu moom it xar la moo xam ne amoon nañ ci moom yaakaar trop parce que li mu commencé woon def boo gisee li nga xam ne moom na élevage soxla moom la commencé woon di def muy auteur LCS auteur bi muy def ak LCS bi muy def wax dëgg yàlla tàmm nañ ko ci élevage ak boobu dam ak loosu sànni parce que tey élevage dafa am lu mu soxla gis nga boo xoolee lëkki dagg saxu tànk yi ba fii muy garo bi dañ koy soxla nga xool LCS bi dañ koy soxla nga xool loos bi xool crangu bopp bi ni mu dammee parce que élevage lépp ay tax-tax la yoo xamante ni dafa bokk ci race élevage laadum moo tax xar boobu wax dëgg yàlla yàggu fi mais yàqu fi nag dam na fi loo xam ne wax dëgg yàlla defar na ci ñu càmm daal wax dëgg li mu fi def moom xool sedd na yaram sedd moo nekk doon kii doomu alhamdulilah moom it mais ñoo bokk papa moo tax ma la alhamdulilah li muy def boo xoolee boo xoolee xeetu xar yi muy def yaa ngi kii boo xoolee autour bi LCS nga xool loos bi ñii tey bu ñuy juddoo takk kii dégg na cinq millions kii bi mu juddoo bees doon mbote bu ndaw dégg na cinq millions mais du cinq millions bi muy soog a judd ci même jour bi pour dugg na dëgg na cinq million mais boobu dafa am li taxoon ñu téye ko mooy lii parce que fii kay kii kii tey li mu la mën a defal ëpp na cinq millions kii ngay gis nii après moom moo topp ci kaw ñi kii amagul doom tëng la mais kii moom it bi mu juddoo ñoom ñii ñëpp kenn ku nekk dégg na cinq millions mais du du cinq million bi li ma la wax rek ci ñii li la mën a andil du moromu ay 5 millions parce que dañoo nitee ñoom seen yaay ñoom ñoo fi génnee seen yaay parce que am yenn xar xam ne boo ko juddule seen yaay dootul am place ci gi loolu tax ñu la race améliorée da ngay fexe di croiser xam li ngay croiser parce que croisement yooyu mooy mën a tax tey nga mën a juddul ay ndaanaan léegi ndaanaan yooyu dañ leen di tey xar dina juddu tey man yaayam gën a seer yaayam junne yoon yaayam mën nga ci dégg ay 2 millions 3 millions mais day tey nga dégg ci ay prix yoo xamante ne da ngay mujj préféré téye ko moom nga jaay yaay ji parce que loolu tax nit di liggéey voilà kii rek doomu alhamdulilah mu doon koo xam ne wax dëgg yàlla bu doon ca jamonoy buur ya kii lay doon waaw parce que ni la parce que euh, coppite bi mu sol ak jébb bu muy def kàttank yi moo tax lii du xaru caaxaan xaru xaru buur la bu doon ca jamono lii xaru buur lay doon voilà kii doomu miracle la miracle donc nekk doomu Petit ñaa Petit Niang nekkoon doomu Saalum Saalum. daga kii itam yaayam doomu Carlo di la. mu doon xar moo xam ne moom it wax dëgg yàlla bi mu juddoo bu ne dégg na ko bi mujj doo bees mais tey lii lañu soxla woon ci moom parce que xar lañ yoo xam ne avenir lañ. parce que boo xoolee moom it bi après yàggul dara ci leen jaay yaay ji. kii culul la quoi mhm. bii mooy culul quoi. cul bu moom la ñuy wax xac mais <laughs> eh, bu dee ci xar moom kii mooy cuulul wax dëgg yàlla gétt gu mu juddoo gars yi am nañ ci ay takk-takk yu ñu wax ne nañ gu mu juddoo rek jàppal ne kooku moom élevage am mën na am yaakaar bu baax a baax a baax parce que ñii dañuy wax seen couleur bi du couleur lu caaxaan moo tax éleveurs yu bëri di daw di wax ku judd ku judd la euh, couleur cuulul sa sa jàppal ne yow càmm commencé na la xam eh. loolu moom du samay wax waxu mag la ñu fekk ko fi nag wax dëgg yàlla gëm ko it nag parce que nag dañoo rampé nekk di toog ak ay mag ñuy wax li nga xam ne nii mooy élevage su laadum li nga xamante ni mooy takk-takk yi ci nekk mais kii daal jàppal ne ku mu juddoo sa kër daal jàppal ne yow waaw sa mbiru élevage daal jàppal ne ubbeeku na bu baax a baax a baax loolu yàlla dogol ci ñoom jongo mi yi ñu leen di présenté kii doomu gaynde la mais yaayam ñu koy wax ramatulaay yaayam sëtu si ñaar la ñu jël ko teg ko ci doomu Saalum bee di Île du Saloum ci la wàccee ñaari mbote yi góor ak jigéen kii mooy quatrième portée mbote yi mooy quatrième portée mooy xar la moo xamante nii lu na dégg na ko ci àdduna xar mi ngay gis ni xar mi bu ñu ko bëggoon a jaay mën nañ ko jaay ba treize millions mën nañ ko ko jaay xar nga ngay gis ni mais xar bi mu ëpp loolu dèjà doom yi mu la wàcceel nii rek doom yi rek tey boo doon xool feeg suba wala ginnaaw suba wala une semaine rek ma ne lay génnal xaalis bi dul jeex muy ñaari mbote nii ngay gis ni parce que ñaari mbote yi doomu Île du Saloum lañ Saloum nekk doomu Calvin Kap kii euh, Île du Saloum nekk doomu Calvin Kap ak Saloum Saloum kii nag doon doomu gaynde mu doon koo xamante ni xar bu xar bu xar am ci moom yaakaar na mooy xar bi dëgg yàlla rafet na tam mën na jur li muy wàcce itam tabarkàlla macha allah sedd na xol loolu ci mëntu dégg daal mooy kii champion la daal bokk na ci doomu gaynde yi nga xamante ni moom lañu réservé woon tey la mais kii boo ko xoolee rek xam ne wax dëgg yàlla lu ne mën na ko jar waaw moom xar bi ay voilà kii doomu dardaas doomu dardaas wax dëgg dardaas doomu nim sàll mais dañ mais mais mais dañoo dañoo dañoo jël dañoo dañoo jël doomu dardaas bi teg ko ci benn doomu alhamdu muy disque d'or mu jur ñaari mbote yi ñaari mbote yi doomu alhamdu kii moom doomu Darlaas muy mboota yoo xam ne wax dëgg yàlla moom xar mi jur na lu nice kii mooy taawam quoi ñu ay taawam waaw macha allah ba tey kii tamit bokk suñu base de femelle yi ñuy liggéey fii moom mu nekk doomu Waali yaayam nekk Ramatoulaye di sëtu Kaiser ak euh, Bachir euh, boo xoolee moom magam bu jigéen mu ngi fi boo xoolee même composition bi la waat rek Saalum bi ba tey mu nekkaat ci dernière version femelle yi nga xam ne ñoom lañ fi téye di si liggéey moom aussi ñu téye ko fi liggéey si téye ay produit am si ay doom yu doy waar am na ay doom yu jaay am na ay doom yu fi nekk moom doom Waali la Waali nekk doom Saalum Saalum waa prix mooy comme tey jii suma ko doon jaay mën naan la kii su ma ko doon jaay tey boo deful 10 millions du ma la ko jaay waaw. waaw na koo sax ëpp parce que base de bu ñuy liggéey la rek luy liggéey moom bëgg bëggagun koo jaay xam nga soo ne mën ngaa wax prix sax nit tey xëy indil la xaalis ba ni la xaalis bi nga waxoon nanga xaalis baa ngi nii moo tax des fois da ngay ragal sax wax prix parce que loo ci wax rek yaakaar ni gars yi duñ la fay gars yi sañ nañ lu ko raw waaw macha allah tey kii aussi bokk ci base de bi moom doomu galas la galas nekk euh, doomu idol idol doomu may sara la galas nag nekkoon benn maal boo xam ñoo ko juddul woon fii ñu jëndoon yaayam ci sëñ galas Amina Touba bi mu ñëwee muy colotil bi mu ñëwee mu jur ko fi léegi nag ñu téye woon ko moom ñu jëloon yoroon fi nag ay doomu saalum jigéen galas ci doomu saalum yooyu la tëboon mu ngi ci tëboon doomu saalum bu ñu doon wax nday ci la jur kii moom aussi ci suñu base de famille yi liggéey la bokk Ah, macha allah kii moom ci suñu géniteurs yi ñu samp la bokk moom mooy Boyel mook daat Seck ñu tuddee ko la bateau de croisière bi nekk Saint-Louis moom nekk euh, doomu Nestor Nestor nekk doomu Maïsara ak Linguère Maïsara tamit ku ne xam na ko ndax yaakaar naa ne période bi Saalum di nekk di def reñ moom aussi mi ngi fi woon di def reñam te ku ci nekk bay waaram ci càmm yaayam nekk doomu jam ciiri jam ciiri nekk doomu boy séeréer jam euh, boo ko waxee tamit da ngay isiwaat boo xam ni dañoo yàgg liggéey ci càmm mën naa ne moom composition bi yëpp gala yàlla euh, tey jii ñu jëlee woon ko suñu xarit bu baax bu ñu wax Rico moom la ko moo ko jëndee woon arena bu muy nekk xale ko ba mu nekk maam moom mu baaxee ñu ko nag moom mu nekk di liggéey di def ay production yu doy waar suñu yéegee ci kaw ci kanam dinaa doon ay yenn ci ay doom yi nga xam ne moom la fi jur ak yenn yi nga xam ne joxe nañ leen kii nag li ñu koy jëndee woon moom cher na xam naa nag du lu ñuy wax mais jëndee woon nañ ko xaalis bëri jëndoon nañ ko xaalis xaalis dem na ci ay xar sax dem na ci waaw te xar yi ci dem yëpp ay xaalis la leen jaayoon après moo tax nag tey jii dañuy dañuy préféré bàyyi noonu rek mu liggéey ñu jéem a liggéey ci lim fi lim fi lim fi waaw ginnaaw bi ñu jógee ci xar yi donc bergerie mystique la ñu wax donc yamuñu kese ci xar yi donc ñu ngi defaat aussi benn élevage de prestige bu ñu wax élevage de race pigeon amélioré donc fii suñu kanam ñu ngi benn ñu ngi ak benn couple mondain opal donc opal moom ku ko wax yaakaar naa actuellement bokk na ci tendance élevage bu bees bi ci côté mondain donc am nañ fi benn couple opal boo xoolee bi mooy mâle bi mu ngi takk euh, benn bàgg année 2022 femelle bi aussi femelle bleue la donc aussi ñoom ñu ngi ci xaar aussi benn production bu extraordinaire donc euh, couple bi aussi boo xoolee rek daanaka def nañ ci xaalis bu bari te ñu ngi ciy dégg aussi xaalis bu bari te yàlla dogal na ñu ngi ciy def production te am nañ ci yaakaar aussi quoi waaw. donc boo xoolee fii jeunes yi ñoo leen produire donc bii àndalu la bale noir la ñoom aussi ils sont issus d'un couple boo xam ne mâle bi mâle bi àndalu la benn àndalu bu ñu jëndoon boole ko ak benn femelle euh, benn femelle bleu mu génneel ñu lii donc jeune bi kese kese ñu ngi ñu ci fay 500000 te jaayuñu ko. donc comme li ñuy wax rek sujet bu baax moom lu ko waay jëndee jar na ko waaw ñu ngi ci am yaakaar aussi di ci saaku ñaan tamit waaw fii aussi ñu ngi fi yor benn couple boo xoolee femelle bi noir la opale la mâle bi noir mâle bi mâle femelle bi opale la mâle bi mooy noir donc femelle opale mâle femelle opale bi kese kese boo ko doon jënd minimum gàtt gàtt di nga ci def 800000 wala 1 million te taxula koo am ñoom aussi bon nekk nañ ay jeunes yoo xam ne dañu leen recruter woon ñaan yàlla aussi def ci production bu extraordinaire aussi quoi. fii aussi ñu ngi fi yor benn couple boo xoolee femelle bi noir la. Euh, maal bi indigo la donc aussi ñu ci xaar benn euh, mën nga ci am àndulu mën nga ci am noir mën nga ci am aussi indigo aussi quoi. ñu fi yor benn couple xam ne maal bi donc euh, woon ci benn importateur bu ñu wax Malick Saltigué di ko nuyu di ko nuyu de passage. femelle bi aussi nekk benn boo demee bay liggéey ci benn affaire moom da ngay am. Euh, les sujets de qualité pour avoir de très bons résultats quoi donc aussi nekk na couple boo xam ne wax dëgg fa neex yàlla liñ ci jotaguma produire non dal na xel quoi yaakaar naa benn couple bi kese kese ñun faale wu ñu ñu yor xar yi quoi donte ne bergerie bi am nay xar mais am na ay pitax aussi quoi te pigeon yi aussi wax dëgg na yàlla ñu ngi ciy liggéey te am nañ ci njortu gu rafet tamit quoi. donc comme ni ñu leen ko waxee sànq ci pigeon yi rek bergerie mystique aussi dañu def benn innovation di liggéey tamit boo xoolee ci côté Cette année-ci, on a innové, bon, dugal ben race, le lapin rex tricolore. Donc, mon lapin, ne lapin à fourrir, là, quoi. Donc, on avait fait l'importation du nous sommes ben grand, bon, mané, du coup, salut au passage. Mon moi, nous avons sujet. On avait un trio, on avait sélectionné un trio pour liggéey On avait trois femelles et un mâle. Donc, le mâle, c'est un mâle dalmatien, rex tricolore. Donc, def nañ ci production, nous avons une production. voilà kon li ñu lépp mooy bergerie mystique ñu ànd ceeg ay liggéeykat yu xereñ wax dëgg yàlla Lamine a ngi nii sama wet muy doon koo xam ne ku jàmbaarale ci liggéey bi Dieng bi nga xam ne mooy coordinateur bi moom mooy kiy doxal moo nekk nii sama wet ñu doon ñoo xam ne wax dëgg yàlla neex nañu ànd ak liggéey parce que liggéey bi liggéey collectif la du liggéey benn nit te ñi ci nekk ñi wax dëgg yàlla kenn ku nekk da lay wan la moo gën a bëgg li muy def parce que loolu mooy liggéey liggéey li ngay bëgg li ngay liggéey boo ko bëggul doo ko mën a def parce que ñi ñu àndal équipe bi di liggéey dañoo xam li ñuy def bëgg ko ba noppi di def ci xol bu sedd guy moo tax tey résultat bi ñu am ko wax dëgg yàlla ñu ngi gërëm suñu waaye muy njaase mi ko ne depuis ba as ba léegi mu ngi ci gétt gi wax dëgg yàlla def fi lu ne di gërëm suñu waajee Abdourahmane mu doon koo xam ne wax dëgg yàlla moom it la ci gétt gi la bokk mm-hmm. suñu gaay yëpp yàlla doon loo xam ne daal bergerie mystique daal c'est la famille ñoom ñëpp ngi sant Babacar l'expert ñoom Talla gars ñu ngi ci biir wax dëgg yàlla kon nag fii daal mooy xolal muy dox a ñàkk ci am wóorul <laughs> waaw dafa leen ko allah bu ko defee ñu ñëw fii <laughs> waa Bergerie ko jox tamit nit ku jar jox xar koo xam ne lu waay jëf ci moom rek xeeb nga ko ndax dafa nangoo sonn ci nit nit ku ko defalul dara sax day sonn ci yow. Mhm. muy suñu grand bu baax di bàyyi ji bi yàlla dogal na nekk fi muy extérieur moom it doon xale bu yaru ku jox ñëpp cër ndax tey jii boo ko fi ni yaayam bàyyiloon xar yi muy bundu xatal nit ñi wala nga ñëw di fëgg di la tijjil mhm. kenn du fa sawar a dem ndax éleveurs yi dara ñor leen dul xar mhm. xar moo leen ñor tey jii su ñëwee wanoo leen kanamu xar fi lan lay bàyyi ak say xar dem seen yoon ñu suñu yoon nekk di suñu ñu wala soxlawuñ salon soxlawuñ dara ñun suñu ñëwee sa kër bu waa kër gi doon naan dañuy taxaw bi sax fi jaar wan ñu yoon mi ngay jaar pour dem xale di ko ci ñaanal yàlla mu barkeel muy mm-hmm. mu barkeel mu am ci lu kawe njortam lu saalum saalum mu jigéen bu liggéey lu baax yàlla na ko xar bi def waaw ba tey wax dëgg yàlla lii lépp nag li waral coow li mm-hmm. kenn ki la muy Cheikh Fallou Ligue Nicolas mu doon ko xam ne wax la daal ñu ba noppi di ñu fa xasal mm-hmm. parce que jiital nañu ba noppi nee ñu yéen a ngi noon xar yaa ngoog liggéey leen kon donc kooku ñu ngi koy sant di ko gërëm tey lu ñu mën a am ci élevage ak lépp loo xam ne élevage am nañu ko ci élevage rek ginnaaw yàlla mooma kon kooku mënuñu ko sant ñu ko bañ a gërëm ñu ko sant gërëm ko ci yaatal bi ak yéwén bi ak yéene bi ñoo ngi koy ñaanal daal yàlla mi nga xam ne mooy borom jàmm te kum jàmmal nga yàlla na yàlla jàmmal ko aar ko sàmm ko bu baax a baax ci man képp ku ma xam xam ne man bëgguma lu nooy suma live man nay metti rek ful ak fayda jom dem ñibbi dafa am lu ma tàmbal gaay te sama bët bi daa am fu ma ko teg. Ah, soxla ma wax ju bëri dama si bëgg jëf ju bëri. waaw hmm. nga sakkanal say batterie. man du ko ñuy appal ay temps. man du ko naan ay une minute ak deux minutes. yaakaar naa ne yow sunu combat bar bi siflet di ñu parce que ni ma gisee ngay wax nii. doo dellu ginnaaw. non loolu moom bu am jàmbaar. waaw kay kon loo ciy hésité wala du ma la arrière. du ma wax signature. bu arbitre sifflé def naa ko. 30 secondes laa la wax. bu la neexee ngeen xaar. yow wàcc nga bu yàgg nii dama koy bëri yow. xam lu ma bëgg dama bëgg ngeen ma dama lay woo digg ñàngatang mooy nga yokku gaz bi. man si digg ñàngatang laa gaz boo yokkul gaz bi baalu mu la. barki Seydina Mohamed. sa dawal yokkal gaz li ma yor rek xew sama dama lay assommé.